Relations internationales. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. kon ñu bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal tënku ba xibaar tey mercredi di 16 novembre 2022 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. njiitu réew mi Macky Sall moom nag xam ngeen ne demoon na teew fa la ñuy wax sommet G20 te ñu amaloon ko nag ca Indonésie ca Bali moom nag ci jamono joo xam ne sax àdduna ñu ngi jànkoon tek ay jafe-jafe lu si mel ni jafe-jafe dem ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum dund ak it ci wàllum koom ak lii di wàllum climat moom nag woo na ñi nga xam ne ñoom ñooy ay naataango njiitu réew ñu boole daal seeni doole ngir mën a xeex ba sax objectif yi nga xam ne kon am nañ ko ngir ab croissance boo xam ne bu dëggër lay doon bu yàgg te bu équilibré maanaam boo xam ne bu daal yemale lay doon ñu mën ko amal mën a gañe kon boobule xeex. ba suba tey bi nag ci àllarba ji fële ca maison de la presse Babacar Touré journaliste yu bari dajaloo dajaloo nañ fa tey kon dem daal ngir kon wane seen jàppale ki nga xam ne mooy seen naataango bii di Pape Alé te ñu tëj ko. kaso ñoom nag euh, ñu ngay sàkku daal ngir ñu bàyyi ko ci loo xam ne sax amuloo xaar euh, ba léegi sax ci jàppale boobu ñuy jàppale Pape Alé Niang ñu ne dañ amal ab euh, manifestation muy ab marche boo xam ne bu mag lay doon vendredi 18 novembre te nag ñu say woo képp koo xam ne day yëngatu ci wàllum journalisme xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca Sierra Leone foofu nag euh, député ya dañoo woote ab loi boo xam ne daal euh, siège assemblée ya li ñu naan un tiers bi euh, day nekk ay jigéen maanaam daal ñetti député yu ne kenn ka jigéen lay doon wante it li nga xam ne moom mooy ay conseil local ñett yu ne kenn ka jigéen lay doon texte boobu nag démb lañ ko adopté à l'unanimité maanaam ñëpp ànd ca ñu adopté ko ki nga xam ne nag moom mooy njiitu réew ma fi nekk nii moom moo ko war a signé. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy Donald Trump te nekkoon fi njiit réew Amérique moom nag sampaat na ndëndëm ngir élection euh, yi nga xam ne kon dina am euh, fii ak ñaari at moom Donald Trump nag kon euh, ne daal bëgg na doonaat li nga xam ne kon mooy njiital États-Unis gannaaw bi mu li nga xam ne moom mooy pouvoir bi loolu nag mu ngi ko xamle. Euh, démb kon gannaaw bi nga xam ne sax ñu doon amal ab cérémonie moom ak i ñoñam foofale ca Floride ci benn këram kon bu nekk ca Mar-a-Lago nekk foofale ca Floride. xibaaru tàggat yaram lañ koy jeexale suñuy gaynde euh, handball yi nag euh, bés bu tey bii ñu def li nga xam ne moom mooy quart final finale ñu war cee jongante nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Égypte. Euh, tey jii kon lay am fële ca Dakar Arena ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique handball bi nga xam ne kon Sénégal moom moo koy euh, dalal gannaaw bi nga xam ne nag amoon nañu ñaari victoire ci li nga xam ne moom mooy match de poule yi loolu permettre leen kon ba ñu qualifié woon ci lii di quart de finale ñu leen di ñaanal tey ñu am ci ndam ngir mën a dem demi finale li ñu doon tey ci xibaaram seen teewlu di jox di